moo tax ma gën a ñëwaat ah, mooy bi nga naan da ngay jël sa baton de pèlerin mu ne mais coon coon moom peut-être dafa mel ni comprendre tout combat bi quoi. Mm-hmm. parce que début bi yaa ngi woon ci raay bi. maanaam. wàccuma ma bi wàccuma raay bi de transparence wàccuma raay bi de. commission de contrôle permanente bi. d'accord naa ci d'accord naa ci dama ne. dama ne. Mm-hmm. damay sol léegi sama bâton damay sol sama dàll jël sama bâton de pèlerin. dem seeti Youssou Omar Pen, Bab Mal